am contentement di ñëw yéen chaque jour comme ni ko koy defee saa su ne tey jii ñu ngi fii ci Cité Fadia kan moo woote Garga 2 l' enfant chéri des Parcelles ñu naan ko le Messi de moo woote open press lamb ji nga xam te ne nii waa Vox Arena ñoo ko tëgg borom 5G ya moo daje kan Mama Lamine beneen xale beneen jeune mais day def ndànk rek daal di dugg xoolal moo fi nekk ci ambiance tegal leen ko dinañ koy gis ne ci ah, Garga 2 naan ko ah, xool li fi nekk ci ah, a xam Bilal ëppoon presse dañu wax ah, dañuy daal dugg xool Garga 2 lan la naroon Bamba Lamine mu wax ko ah ci entraînement ci tous la lay indi si boteeram yi lépp dinañ ko xam mais balaataa loolu rek dañuy xool ay doomu ndeyam xool lan dundee préparation combat bi salaamaaleykum sëñ bi maa leen nuyu. salaam soxna si si yar bu baax waaw man Diaz ah. gis nga ci buntu bi di gardeel nga xam ne mooy Garga 2 loo ñu wax ci moom. a Garga xanaa baax yarul rek bilaay Garga am fayam dañ ko ñaanal jàmm rek ko ndam ak borom baax la na fa jaay vraiment kenn ko dégg su waa ñu ngi lay delloo na baax yaatu yaru xam nga doon suñu grand frère daal ñu koy ñaanal ndam rek Mama Lamine ne ko mu xaar rek waaw boo gisee lii rek war ngaa xam ne mooy loolu dañoo pare non lépp lu mu indi rek lamb lu mu laaj rek incha allah. Bilal daa mel ne champion mu ngi ñëw ah. ñëw daa mel ni am na ndaanaan buy waaj a ñëwaat. Ndiaye Gawlo open press nga def nii yow combat ba noonu la def waaw dañoo war a jàppale suñu jëkkër ndax Garga sama jëkkër la mooy seeg sama rakk moo tax ñu bëgg a jàpp ci moom combat def ba mu baax ko ñaanal ci dërëjë Serigne Sary Mbaye yal na ko yàlla may ndam ndax xale bu yaru la xale bu baax xale bu gën xale bu riis ak Serigne Sary Mbaye moo tax ma jëkkër yéen ñu ko jegee wàllu mobilisation nan la koy waajalee waaw fi mu ne takku nañ ba dëgër muy sëy rakk Arma Ndiaye bu bokkoon nday baay nday sama rakk sama doom baay Arma Ndiaye aussi noonu kon boor Garga di bëre jël drapeau tuddee ko Arma comme yoonu takk di ko ñaanal yàlla na ko yàlla na ci bàkk Serigne Saliou la des daal du yomb fi ne du yomb na takku lañ ba naana ay géewal lañ parce que Garga doy lañ nekk ah nuyu waaw ah, lay fay soxna noonu waajalee combat bi waaw comme rek xanaa ñëw dooleel suñu rek comme d'habitude rek ñëw tawfeex may ko ndam ci bis ba incha allah wàllu mobilisation wa ce que yéen a ngi waajal en conséquence jour J. waaw gis nga Fadia moom ñëpp a génn bi kenn desul xam nga ñu ñëw dooleel Garga suñu mbër la suñu xarit la suñu doomu ndey la comprendre nga te nit amul dul bésam xam ñu ñëw def ci suñu doole suñu xale ak suñu xel ñëw jàppale ko rek suñu borom may ko ndam incha allah bu ñu xëyaatoo. xam nga maanaam maamale bi bu baax maamale bi xam ngeen ko bu waaw loolu nag mbër la comme yeneen mbër rek. ah di ko ñaanal jàmm rek moom it xam bu bis ba bu ñëwee ñu daan ko ndànk rek barke Serigne Touba bi lay waral. daan ko ndànk meli daan ah, daan ndànk dafa am. Miss maa ngi lay nuyu. maa noonu waajalee combat bi. waaw combat bi moom ñu ngi koy waaj moom comme ni nga di ñaan yàlla may ñu ndam incha allah. waaw garga xanaa di gëgg ñoo soññu rek parce que moom champion la déjà mën na li muy def am na yar am na respect di ko wax rek mu def li mu daan def rek ñaan yàlla may ko ndam allah combat capital diggante ak Mama Lamine boobu ñoom ñaar lan waaw ñaari champion yu mag a lañu ñaari xale yu nekk seen yoon la ñaari xale yu làmb soxla lañ e ñaari xale yu am avenir lañ li ci nekk rek mooy làmb foog mu am ku daan am ku daanu Mama mondu làmb ñëpp xam nañ ni champion la xale bu mën a bëre la xale bu bokk ci làmb la Garga 2 tamit ñun ñu nangul ko mën a bëreem at bokk ci lambam at xaleem waajal ko nag waajal ko xam ne ci bés la jëm waajal ko nag ba pare ñëw gunge ko sunu xel dal ci lool di ko ñaanal yàlla nag yàlla may ko ndam parce que làmb moom foog mu am ku daan at ku daanu te yàlla def na ni ci côté Garga laa féete donte ñun ñëpp ay sportif lañu sunuy rakk lañ ñoom ñaar ñëpp mais dañuy ñaanal yàlla Garga am ndam bu sedd ci kawam. jaajëf jërëjëf. doomu ñeeño bi neexu leena waa wallaay ni kenn bañu ko doomu waa wallaay ni kenn bañu ko doomu ñeeño waa wallaay ni kenn bañu ko jutu ay bete xada di walo ay wa yalem ngoro jutu fala ni ay mexe xada di walo jutu falanite ay bebe fada di walo yalle mbaro jutu falanike ay mexe xada di walo sarata sarata dinalilo ko lay say ay doomu gabila lalle mbaro jutu falanike ay mexe xada di walo wali wali balago mariasin lale mbaro dutu faala ninke ay mexe xaada waalo ana mbay si mbay si la xalifa lale mbaro dutu faala ninke ay mexe ci waalo waa garge garge garge Modou Lo soo seeg see dafay bëree daan ndeysaan Modou Lo wa ngi noonu dugg moom gën ak gi moom njiitu Rock Énergie bi Modou xarañ la wagi loolu neex a faral dimanche gi loolu ndeysaan ñëw na soutenir Garga 2 ndeysaan Modou Lo ñëw na loolu ma tas mu doon Modou Lo ñëw na ndeysaan Modou gi loolu ndeysaan xale baa ngi noonu fu mu nekk mu neex moom Modou xarañ loo le roi des ngi noonu ndaysaan mu ngi noonu ndaysaan ma nga noonu ndaysaan le roi des ngi noonu fu mu ñëw mu yëngu yéen cameraman moom da yéen taxaw ne ndeysaan Lamba garaaw Modou Lo yi noonu dugg si na. gë gë toj nga pitax yi naaw. <laughs> waaw sëñ Bas. Basirou. Modou ñëw na pitax naaw kër ga toj. ndeysaan. mbooloo mi fi taxaw ñëpp di nuyu dawalkatu sareet yi nag ñoom njaga ñaa xam nga di leen wax ni wax dëgg yàlla bég naa trop di nuyu sama mbokku xam ne dañoo bàyyi seen yitteep maa leen di nuyu ku nekk sa tur sant di la wax ni naa bu baax a baax mais Garga ngay pare le 19 incha allah gis naa parcelle Fadia Modou Lo Papa Sow mu ñu leen lim macha allah ñëpp génn nañu mais sa adversaire lan nga koy yóbbante ak loo koy wax bis ba incha allah di ko wax ne ne waaj rek ànd ak ay mbokkam ñun ñu ngi waaj ànd ak suñu mbokk tey waa parcelle gépp ma jàppale xam nga ñu ngi sant waa parcelle gépp ñoom Modou loo xam nga waaw ñoom Papa Sow ñu grand xam nga waa Dóor Dóoraat tamit sant naa ñëpp Goro Sock xam nga. di nuyu nag waa kër Amadou Baye parce que sono yi nga gis fi yëpp ñoom ñoo ko def xam nga génne enveloppe bu duun indi ko di woo nag suma grand laaj jub bu baax directeur Lonase di ko wax ni bi combat am la ci jàpp bu baax a baax jëndal ñu billet di sant nag mam ba bu baax a baax di ko wax ni ko combat bi combat am la di woo nag ministre ministre la jeunesse Euh, Néné Tall ñu ngi koy woo bu baax a baax di wax combat bi moom it na ñëw jàpp ci di woo Moustapha Camara di ko wax ni moom it ñu ngay ñaanal mu tane bu baax a baax na woo autorité yi tamit ñu jàpp ci bu baax di woo maire Golf Sud di woo nag sama benn grand bu baax bu ñuy wax grand maanaa Gomis borom école laal gis naa jàppale bi di wax kontaan naa bu baax di woo sama benn grand Dame depuis Canada Dame Gueye depuis France di woo Dame Diouf depuis Canada di ko wax ne combat bi combat am la na ci jàpp bu baax a baax di nuyu nag journaliste yi toog fii yëpp waaw. Ah, yan ma yan ma nuyu na ñëpp gërëm na ñëpp na wax ci Mama Lamine bu ñu tëjee barrière yi Garga 2 Mama Lamine ci digg géew gi. Hmm. Mama ñu gis ne mbër la moo xamante ne nii ay combat bi bari par xeex la koy gagné. Garga 2 nga nekk daanaka bëri kat mais nga gëj a bëre teg na xale bi nga xam ne muy xale bu bëri coow lambu. yàgg Mama Lamine ci digg géew tëj barrière yi sant nga ñëpp mais waxal ci caméra yi non ñu koy ñaanal rek mooy yàlla defal ko jàmm ba le 19 bu ñëwee incha allah rabbi ko daan ko ci kàttanu yàlla ak baax bu xeexee ñu duma ko su bëree ñu daan ko ñu duma ko su bëree ñu daan gis ni Mama Lamine xale la boo xamante ni bis bu jot day wane boppam ñu gisaat beneen Garga 2 bu bees nga ñëw concentration bi surtout état de forme bi parce que bët day liir macha allah ñu gis beneen Garga 2 préparation bi nan nga doon préparé combat bi. ak ñaata séance nga ci doon def par jour. di sant yàlla nag loolu nag maa ngi koy nuyu sama coach yi. Hmm. coach waa jàmbaar Wrestling Academy yëpp ak mbëru parcelle yëpp. parce que may ñu ma jàmm may ñu ma salaam lépp lu ma war a def rek wax dëgg yàlla may ñu ma ci jàmm ak dégloo waay ak dégloo gars yi hmm. comprendre nga ñoo di sant papa Sow bu baax a baax a baax parce que mayu ma jàmm maam père ba aussi ñu ngi sant ak doomam Mansour parce que ñoom papa Gueye ñoom Pape Ndiaye xam nga mayu ñu ma jàmm quoi ay ñoom góor a njool xam nga góor a béy góor a soog mi taxaw mayu ma jàmm suba mayu ma jàmm ngoon fu ma naree noppalu sax ñu ne ma doon noppalu di sant tamit Aline Mbengue bu baax a baax parce que yóbbu na ma fu ne ci àdduna barke alxuraan parce que combat bi daf cee sonn di nuyu sama grand frère yi ñi nga xam ne ñoom laa bokkal baay ñi ma bokkal ndey ak baay yëpp dinañ ci ñëw nga ñëw ci parce que gis naa non maanaam may ñu ma jaam loolu lépp ci préparation bi laa lay wax mm, mm. bëgguñu ma xiif bëgguñu ma mer xam nga mm. bëgguñu ma manqué dara di sant tamit sama soxna bu baax ak sama waa kër bu baax grand yaaram Guèye moom damay ñibbi sama kër sax xoolal mu may woo téléphone naa ma defal lii lii baax na ci sportif defal lii moom ñu ngay ñaanal yàlla defal ko fanu gudd ak wér gu yaram wax yàlla ñun mbëri parcelle yëpp amal nañ ko sant moom grand yaaram ñoom Ibou xam nga parcelle bàyyiwuma kenn ñoom Papis xarañ ñëw ñëpp a doon bàyyi seen idée di ñëw barke alxuraan nee na mhm. da xalamal di la liitir di la wayal ba ci digg géew bi mu jël li moom dem nga man doomu ñeeño laa boo ma xalamalee damay gën a xabtalu soo ma tëggalee damay gën a xabtalu comprendre nga su ma defalee loolu dama koy duuma daan ko ci kàttanu yàlla nee na moom tarkindaa la du ñu ngi wax parcelle gépp nañu génn ñu mobiliser wu mobilisation bu am doole. ñu dem ndam di indi ko ci incha allah. tey bu la àdduna bi yëpp doon seetaan ngay ñaan Mama Lamine seen diggante yéen ñaar ngeen war a jëflante lan nga koy ñaan. mu def non Mama Lamine amul lu ma koy ñaan la def lu ko arrangé man li may arrangé laay def ci incha allah. rek ci non man du ma favori parce jox favori. non Mama Lamine lañ jox favori. waaw nan bàyyi ba bis rek incha da ngay fekki wala da ngay xeex wala non man làmb lépp lu mu laaj rek parce que ñun dañoo nekk ci ay préparation nekk ci ay loxo dañ naa ma li ngay bëree loolu laay bëree incha allah rabbi di sant nag waa jàmbaar Wrestling Academy yëpp di sant waa Parcelles Assainies waa kër Amadou Ba nag gis naa seen taxawaay bu baax a baax bégg naa ci ñoom di leen wax ni grand Seydou gis naa taxawaayam bu baax a baax wax dëgg yàlla di ko ñaanal yàlla na ko suñu borom defal jàmm grand Zemkan ah grand Nazer xam nga waa kër Amadou Ba yëpp di woo nag encore Lat Diop di ko wax kombaa bi kombaam la di nuyu doomu ndeyam yi ñoom Gora Mbaxal xam nga ak doomu ndeyam Pape Sall ñoom wax dëgg yàlla ay Tafa xam nga ak ak ak Tafa Buuju aussi. woo na ma tey ni ma Lat Diop dina ci jàpp bu baax. di woo Cheikh Fidior Khadim Touré. di woo sama mbokku ñeeñoo di dina wax ni combat bi seen combat la. di woo Dame Diouf depuis Canada di ko wax combat bi mu bëgg mu jëndal ma ay billets yu bëri. nga Lat dina jënd yëpp kon leer incha allah di woo nag waa di woo waa Ndande Fall yëpp. déggoon naa yeneen i adversaire déggoon naa yeneen adversaire avant kii di Maram yow mosoon nañ waxtaan bu yàgg yàgg moo tax nga toog ay ati at at bëre woo mais est-ce que combat bi amul benn particularité yow yaa tànn Mama Lamine wala boog moom moo imposé wu ba yeneen combat yi waroon am amul. non xam nga ñun ay mbëru làmb lañ dañoo ne ci ay loxo. ku ñu wax ni bëreel ak moom rek ñoom loolu la kooku la ni bëreel Mama Lamine champion la def na ay am nga li ma la ñun aussi toog nañ lu yàgg a bëree làmb boole ñu ñu bëree war a bëree incha allah rabi di ñaan yàlla may ñu ndam ci kawam rek bu sooba yàlla mais gars yi li war a wax yëpp wax naa ko li may wax mooy woote parce aussi làmb ji promoteur bi daf ñoo fay xaalis pour ñu mobiliser ko di woo waa parcelle gépp waa Ndande Fall gépp boo xam te ni doomu Ndande nga gis naa seen taxawaay bu baax baax sant naa ñëpp képp foo xam te ni dem naa fa ñaan lu rek du nuyu waa Touba waa Darou Salaam waaw ñoom si Sidi Mbacke waa Baye Baaxe di leen wax combat ah? euh, bu équipe bu bees bi nar a takk sa ngemb est-ce que pression bi du métti ci yow. non ñun ay professionnel lañ yàgg nañ ci làmb xam nga li ma la mu ngi mel ni ma nekk parcelle di préparer génnuma parcelle ba tey comprendre nga samay grand lan dañ may gunge di nuyu waa Dóor Dóoraat yi nga xam ne fa laa nekkoon staff bi yëpp. bàyyiwuma kenn parce que gis naa seen taxawaay ci combat bi ay vieux xam nga dañoo bàyyi seen yitte yëpp Cheikh Thiam bëgg Fallou maa ngi koy nuyu xam nga Père Gora Diagne di nuyu sama mbokku mbër yëpp nag di nuyu Galaye Ndour sama xarit sama doom gars yi nee bi balaa ngeen a bëre da ngeen xeex tuuti est-ce que loolu mën mën mën nga ko confirmer waaw lamb bëre dóor lañ wax xam nga bëre dóor moom bu ñuy wax lépp nga yóbbu da ngay yóbbu xeex yóbbu bëre parce que kenn du dem guerre di fàtte sa arme comprendre lépp lu làmb ju laaj ci yàlla dinañ ko def di woo waa Parcelles Assainies yëpp bàyyi mu diriger wala da ngay diriger loolu nan bàyyi ba le 19 incha allahu rabbi te si tuus mi non tuus ci mel ne Arma ku ci Gawlo xam nga tey boo xoolee open press bi ni mel rek open press gëj naa mel nii. dëgg la comprendre nga géwél yëpp gis naa seen taxawaay. ak xam nga. di woo sama mbokk ñeeñooy encore une fois di nuyu sama mbokk samay ndijaay samay mag samay papa xam nga. di nuyu doomu ndànd yëpp di leen wax ni combat bi dama soxla ñu jàpp ci bu baax a baax. lan nga yóbbante Mama Lamine di woo Sidi Tall. looy yóbbante Mama Lamine di woo sama benn grand. looy yóbbante Mama Lamine. Mama Lamine li ñu koy wax mooy na waaj rek na waaj parce que ñun pare nañ wax dëgg yàlla. Jumbo tamit ndox bu bari bi mu fi indi xam nga di si di woo sama grand Kéba Kanté di woo waa France ñoom Cartouche may nañ ma xaalis bu bari daan xam nga Modou Lo jàpp na ci bu baax bu baax gaa yëpp daal gis naa seen taxawaay di woo encore une fois Xaadim di ko wax combat bi combat am la moo ko Seex Fidio dama bëgg ñu jàpp ci bu baax a baax di sant tamit waaw kii mooy grand Serigne Ndiaye dañ koy ñaanal yàlla ko suñu borom yërëm te xaare ko ci àjjana fi ci biir ci biir inte ci biir koor gi ci la woor ba ngoon jot nekkoon tur bi daanu malaise suñu borom yóbbu ko ñu koy ñaanal yàlla ko suñu borom yërëm ñu ñaanal tamit sama jarbaat bi nga xam ne moo làqu du fan yi ci géeju Malika bi di nuyu di jaale tamit béykat yi intekat gis naa wax dëgg yàlla famille bi yëpp maa ngi leen di gis fii di ko ñaanal suñu borom yërëm ko te xaar ko ci àjjana firdawsi di ñaanal sama jarbaat yi tamit yàlla na leen suñu borom yërëm te xaar ci àjjana firdawsi gërëm looy tàggoo waaw di sant ñëpp nag di sant journaliste yi gis naa seen taxawaay di leen masaw coono parce que tamit da ngeen bàyyi seen yitte yëpp ñëw di nuyu waa sas waa 15 waa Feeraay waa Golf Sud gis naa seen taxawaay di woo waa Cambérène Mbawar Mbawar yëpp di leen wax ni combat seen combat la maa ngi leen di woo ñoom ñëpp di woo ogo ogo yi gis naa seen taxawaay mool yi waa waa Golf waa waa Dalifor waa ginnaaw raay tamit maa ngi leen di woo bu baax a baax di nuyu samay ndiyaay sama bàjjen di nuyu sama waa kër sant naa sama yaay nekk foofu yëpp sant naa journaliste yi jërë ngeen jëf. jërëjëf jërëjëf ñu gis tey Papa Sow ñëw Modou Lo ñëw ñëpp ñëw. sa diggante sa relation. parce que ki nga tuddee sa bopp dégg naa sànq ba xam combat bi dégg nga ko ci ak boo ko ci déggee lan la la wax. gar garga maa moom ñoo bokk ndey ak baay ku nekk xam ne suñu diggante comprendre li koy ñaanal rek mooy yàlla na defal. déggante ngeen ci combat bi. garga suñu déggante bu ñu déggante wu lépp moom ku nekk xam na ni maa ngi moom benn la duñ ñaar. Hmm. écurie moo ñu tàqalee nag mm. nit ku ne am nga droit def sa choix mm. waaye Garga sama mag la te sama mag lay mosoon nekk mm. parce que staffam yëpp ñu ngi sama ginnaaw ñoom Lamine xam nga ñoom Dev gars yëpp maa ñoom réeroowuñ ci dara moom di ko ñaanal yàlla ko suñu borom defal jàmm di nuyu waa Cambérène ñoom Ndiaga di nuyu sama mafia bi nag bàyyi ma kenn ziar naa leen merci beaucoup journaliste yi jaajëf jërëjëf